atte bi yeex lool am na ñoo xam ne seen i dossier mën nañoo toog lu toll ci benn at boo xam ne duñu ko laal dañu koy daal di tegale bàyyi ko noonee yéen i kaay gi na nag loole la nga xam ne moo ko waral bokk na ci magistrat yi nga xam ne bëri wuñoo état bu moom ci boppam moo war a recruter nag li nga xam ne mooy ay magistrat bu ko defee maanaam dossiers ñu mën koo séddale waaye nag ay magistrat yoo xam ne bëri ba pare dossiers yi bëri ci fi nga xam ne maanaam ci cabinet juge d'instruction yi yéen i kaay gi nee na état bu Sénégal nag depuis 1960 ba léegi amul benn kaso xam ne daan nañu ñu koy tabax maanaam Sénégal ba mu amee indépendance ak léegi amul benn kaso boo xam ne tabax nañ ko si réew li nga xam ne nag mooy solution bi maanaam recruter li nga xam ne mooy ay magistrat ba pare nag yokk li xam ne mooy cabinet d'instruction yi yéen kaay gi du l'observateur nee na ñun dañu fee bindoo ne kaso yi maanaam ay jafe-jafey neen moo fa am maanaam fees ba maara day taali loolee nag administration pénitentiaire ñoom nag génn nañu ab communiqué di ko jéem a weddi waaye nag ñun waa l'observateur xanaa administration ne ñun dañoo exploité boo xamante ni nag seen patron directeur général di Jean Bertrand Bocandé ci boppam moo ko produire jébbal ko ministère bi ñu dénk wàllum yoon ñun wàllu observateur dossier boobee la ñu jël nag daal di koy nag exploité te ñu nag assumé nañ lépp yéen a kaay gii di Les Échos xëy wax ne Simon nag rappeur jamono ji feebar na ba mara détaillé li nga xam ne moo koy firnde la am na ñetti rapport yoo xam ne wane na ne ki nga xam ne mooy Simon feebar na ba mara détaillé ab avocat am daan na koy dëgg la di a kaay yi nga xam ne ñoo nekk université bi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg man la ca université ba yéen kaay gi di Sud Quotidien ak Le Soleil ñu xam ne moom lañ dénk wàllu finance ci réew mi ñooy waa poste waa poste nag ñoom dañuy faral di wax ne état bu Sénégal jëm ci bourse familiale bi ay milliards la état bu Sénégal ameel poste loolu nag Abdoulaye Daouda Diallo daan na koy weete yéen kaay gi ci réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naa ñu nag élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal soo muy tuulee dina metti lool ci ki nga xam ne mooy ma Mamadou Guirassy ndax nag liste Yewwi Askan Wi ca diiwaanu Kédougou cour d'appel bu Ndakaaru daf ko rejeté yéen kaay gi na ñi nga xamante ne ñooy waa Yewwi Askan Wi cour suprême mooy seen sanitation l'observateur ñu fekk fa Déthié la ne nag ñoom duñu ko bàyyi mu sedd benn yoon yéen kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu Cheikh Issa Sall mi nga xam ne moo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ca diiwaanu Mbuur jamono ji nag ay mbiram nar naa gëllu gauche ndax dafa am ñoo xam ne saisir nañu cour d'appel bu Thiès ne Cheikh Issa Sall mi magistrat la te nag boo nekkee am magistrat yow nag amuloo sañ-sañ nekk ab maire yéen a kaay gi ne na moo tax nag jamono ji mbiri Issa Sall mbiram mi lëndëm na loola yéen a kaay gi de la Soleil xëy di ñu xibaar nan ñu jamono jii daal kenn ku nekk ma ngi tuñ tuñi ngir nag nekk maire lan moo fi jar daw bay daano yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Talla Sylla moom nag maire na Idrissa Seck loola moo tax yàq na ko musiba ak mbelengana moom Talla Sylla nee na Idrissa Seck dafa war waa Touba war waa Tivaouane Idrissa Seck gëmul dara boppam rek la gëmaa yéene kaay gi de la Tribune ñu fekk fa Talla Sylla nee na Idrissa Seck dafa wan ginnaaw ñi nga xam ne ñooy waatu Touba ngir nag lu neex Macky Sall moom Talla daan nay wax ne Idrissa Seck ak ñi mu àndal dañoo rëpp ci kanam Macky Sall Idrissa Seck ab warkat la ab traître la jamono ji taalibe Macky Sall la yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu nag benn bokk yaakaar boo muy tuulee ndax dina dundaat na nga xam ne moom la meloon ndax nag investiture yi daal daal contestation yi ñaxtu yi bëri na lool gis nañ tamit ne bëri na ay liste parallèle yoo xam ne Macky Sall sax àndu ci te nag soo muy tuwulee daal maanaam vote sanction dina am ci benn bokk yaakaar yéen kaay gi di wal fajri nee na lu jëm ci wàllum luyaas bi loolee la Macky Sall jamono ji bëgg a góondee askan we yéen kaay gi di réew ci xëlim ak Assane Samb nee na nag jamono ji jot na sëkk ñu andi nag ay réforme ay yeesal nag ba nga xamante ni daal njiitum réew daal du nekk chef de parti ndax Macky Sall mi nemmeeku nañ si moom buy wax daal maanaam sax dafay fàtt ne njiitum réew la ba tey ci biir surnal bii di las xëy di ñuy xibaar nan ñu ñi nga xam na ñooy waa police ñoom nag nee nañ ñu bassa dafa doy seen tën yi nga xamante ni am na ñu koy sol loole nag la ñu bëgg mu daal di dakk yéen kaay gi di vox populi xëy di ñu xibaar mbir mu garaaw a garaaw a garaaw mbir mu doy waar moo xam ne Parcelles Assainies cité Soprim la xewee dafa am nag ay jigéen ñuy jaay seen bopp ci anam boo xam ne dëppoowul ak yoon prostitution clandestine nekkoon ci benn kër daal maanaam di jaay seen bopp yéen kaay gi nee na ñi nga xamante ni ñooy waa police daan nañ leen di teg loxo police nag ba mu demee fekk na fu lu toll si juróom fukk ci ay préservatif maanaam juróom fukk cinquante yéene kaay gi ne ne tamit fekk nañ fa ñaari canette yu bière waaye nag la nga xam ne moo ca gën a doy war daal am na benn xale bu jigéen boo xamante ni mineur la moom lañ bàyyi sa standard ba sa téléphone ba maanaam ku woote daal moom xale bu jigéen bi mooy jël téléphone bi di waxaale ak yow maanaam dalee laaj ba xam ban xeetu jigéen nga bëgg maanaam ku njool wala ku gàtt taay fi na wala nag jeune yéene kaay gi ne na en tout cas lii am ba desaala xale bu jigéen xamante ni moo doon waxaale wàllum njëg ya